ki ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi jàkkaarloo ak King Kong ñu fekk ko fii nga xam ne mooy ci këram Dakar fas yéene seq ak moom waxtaan ci lu jëm ci làmb écrit bi mu bokk muy Fass ak moom kar am King maa ngi lay bëgg di la ziar. Euh, salaamaaleykum gannaaw ma sant yàlla. di gërëm askan làmb ji yëpp. di gërëm waa Leewtoo TV. waaw di di sa équipe bi yëpp. waaw euh, man la King Kong nekk écrit euh, nekk si làmb ji di béy sama waar comme samay morom donc euh, voilà. ñaata combat King Kong. am na quinze combats. ñaata victoire. am ma presque neuf victoire. victoire yi boo ci fàttali ku mu lay neex ba tey. victoire yi sama première victoire contre Baye Ball. lu tax nga koy fàttali ko mu lay neex. non parce boobu la fekke ne. mu door a nekk sa xale yaa dégg dugg si làmb ji doon affaire jëre yooyu ñu boole ñu stade Iba ñu bëre ba stade bi yëpp jóg mu tànn ko bi ñaari yoon at bi gisul jëli bi ba après combat bi seen de jox mu son victoire combat bu mu neex la waaw léegi su ma ñëwee King Kong euh, defet yi nga ci gën a metti defet bi moom bu ma gën a metti donc daanaka boo si limee daal benn defet la boo xamante bëriwu ma xeexuma combat bi jeex. ban combat la. mooy sama combat contre euh, mbër bu nekk Tëngéej. Ah, kii soo nu mu tuddati ah, xale ba xale Tëngéej ba maa ngi fàtte tur mooy ki la dóoroon korose bi rek. waaw contre kii contre limousine. limousine bu tëngéej waaw. moom moo gën a naqari sama combat bi. parce que ca combat ba baax na ba jël ko. non boobu fekkee naa ma nekk si ay problème te dama jëndoon kan dem moto xam nga pour di def samay entraînement ay sàkki moto bi sàkki moto bi ma nekk si naqari boobu si diggante boobu boobu ma nekk série din ma nekk ay victoire. Serigne moo jox combat bi mu jël ko mu jël ko ak nàkkat li si waroon yëpp def mos. mu ñëw loolu moo ñëw booy bi bett ma. am na solo waaw léegi su ma ñëwee écurie Fass bi euh, nga nekk ba nga fay dugg ndax nit la fa yóbbuwul da nga fa am idole ñëw dugg fa. non en fait man faas laa nekkoon foofu laa nekkoon temps booy donc ma amoon ay xarit mbër di ànd ak ñoom boobu man sama entraînement dem Ivan daw xam nga laal si baat fi sa ñëw am sama benn grand grand bi léegi mu ngi côté Touba benn jour mu gis ma bu ma yoroon benn vélo quoi mu ne may champion chaque jour gis naa ngay dem di dem entraînement te bu ma sañoon nga dugg si làmb ji te mu yow Fass nga nekk xam nga euh, est-ce doo ñëw dugg si làmb ji maa ko man Fass xaw ma fa kenn mu ne man dinaa la yóbbu. présenté la ak mu xam mu yóbbu ma présenté ma Alsan ngi koy fàttaliku benn jour mu yóbbu ma foofu euh, ma fekk gars yi di entraîné di physique ñëw ma ñàkk tooy xeb mu ne Alsan Jaxate man xale bi sama rax la dama bëgg mu ñëw fii di jàng brésilien te gis naa ko bëgg sport la pour mu bëri kooku ne ko suba na ñëw maa ngi koy remercier bu baax Alassane Diakhaté nit ku baax la di ko ñaanal wér. yàlla na yàlla nangu am na solo léegi nag nga dugg ci làmb commencé di bëre biir écurie Fass nangam nangam yaa ngi dégg nga def ay combat ñu dem ba benn moment gisatuñ la lu tax gisatuñ King Kong. non en fait xam nga boo tollee yenn niveau yi di am série victoire am bu baax ndax Fass amoon saison boo xamante ne am naa ñett combat ñetti victoire. loolu yàlla defal na ko ay ngi dégg dem ba moment boo xamante am sa ay problème du xam nga tout ça ay problème sax mais ay gàllankoor yoo xamante ne comprendre dafa laaj nga defaraat sa yaram xam nga te làmb yow képp xam ne ni muy baaxoo ak yooyu loolu moo tax mais mosuma bàyyi làmb bàyyi ma làmb tey bàyyi ma làmb ëllëg waaw balaa nga xam loolu mu joxee avance léegi ma jël avance ko bëgg lekk non man fim mu ne nii avance ñëpp laa soxla. ñëpp ñan. waaw bàyyi fan yii nii di ngi dégg di wax ne ko fay xaalis euh, di di bëri. mu maye sens. waaw di comme de maye sens foofu la toll. mën nañu pare naa. yow yow yow Bombardier noo koy daan ak loo mën ci Bombardier ak loo sañ wala da ngaa toog nii rek fi nga toog nii fii wax ngay wax loolu. non du loolu. ah est-ce du loolu. ñi ko daan ëpp ñu ma doole. yaa ngi te fi mu ne nii comme ginnaaw yàlla yàlla boole na ma kilifa mag bi may hmm. al amin mun na lu ne. al amin mooy kan. waaw Aziz ah, moom ngay wax al amin. nga yaakaar ne Aziz al amin mën naa daan Bombardier. non day caaxaan dafa xaj ah. yooyu. yow lay détaillé sa al amin. man est-ce que Bombardier yéen a bokk catégorie lamb wala yéen bokk lu ngeen di fayeeku. est-ce que romb la nag. non mais bon si defar la jógee te man léegi noonu maa ko daan santañ dama ko dóor mu këpp. mais yow loo toogee sa xel ne ci Bombardier. non dafa toll may sens te deux ans ko desee lamb di bëri. mun na ma mën a may sens loolu dara. moo tax nga koy attaqué nii. moo tax ma koy attaqué. yéen ñaar ku dàq bëri yaa ak Bombardier nga rek. Hmm. waaw. fi mu ne nii dooleem ragaloo ko. non munu am du doole mag la. moo tax nga yaakaar nga bëgg koo jël pour. question loolu sax. Eh, yow mi da nga mel ni ku wut lu yomb te Bombardier bu dee lu yomb nga wër est boo jaaree moom dina yomb. bu dee lu yomb la du ma ko tudd. ñaata champion la fi daal. man sax da nga ma wax yeneen mbër. non déedéet comme yeneen mbër yi dañ fi nekk daf ma ragal yooyu. ñan ñan ñoo la ragal. ay mbër bu nekk caaro yooyu xam nga. man mbër caaro yi daa bëri mbër di. moo tudd sa tur wax ma déet man nag mënumaa xam boo nee mbër bu ne caaro yi da nga naan ma kii la kii. non fi mu toll nii. balaa baax laal bët di. waaw dëgg la mais ku mel ni nees. nees man. nees ban. yow ñu ngay tudd ñëpp ku ci ne da dugg sa nees dugg na faas daan Papa Sow Gris Bordeaux dugg ba ma ji dugg na faas d' accord Gris daan na ko mais nees itam est ce que nees sa adversaire la. non nees sama adversaire potentiel la daan leen lu ma fa deful fii. nees waaw. nees romb la ci laam. non nu muy rombee. non Pape Maguette xoolal samay palmarès. Pape Maguette man ngay waxal. Eh, eh, excuse moi Babacar maa ngi jégalu. muy nuyu Pape Maguette bu mu sonné goo xam naa moom lu may jaawaleel. waaw Pape Maguette daf ma sonal quoi. daf may woo tout temps. waaw mais loolu du problème. nga daal ba ne nañ la jox nees. non nañ ma ko jox. bu nangul ñu jox ma bombardier comme des maïsans. am na ku toog ci ginnaaw muy dégg mu naan la jëlal Ketchup da mooy sa adversaire kat mooy Ketchup bousee. non Ketchup koy bu ma wax comédien wooy Ketchup c'est un comédie day comédie rek. yow yaa wax lii Ketchup mën naa tontu de. non lu muy tontu na tontu. yow yaay toog fi ni Ketchup comédien la ko ceeb di bëree ci làmb bañ jox ko visa mu dégg naa yor na visa film visa américain la ak ku muy bëre. kon da ngaa jàpp ne Ketchup muy Ketchup ci snap ay yooyu noonu loolu fi xam diggante Amérique ak Sénégal. loolu rek nga ko xamee yow. ah mais loo ah mais loolu lay def. ah snapam boobu nga yaakaar amul njëriñ kon. non snapam loolu bu amee njëriñ moom moo koy wéetoo mu loolu sansam la naka kal foofu rek muy du mbërte. ci du mbër da nga koo gën a doon mbër. ah du mbër ci Diop du ma sax. kon kee toog ne nan la jël ki Diop xanaa da laa yab de xanaa. boog sax daa juum sax yow sax yaa ma bëgg yab sax moom dañ maa wax ma jot leen xam nga lante noo du teeg diw dañ maa wax ma wax la rek. non ah, non Babacar am na yoo xam bu ko di wax sax. ki Diop yow itam. bàyyi yooyu waaye bu ma xam nga lii laa defoon toj table man bugguma xam rek. Oh, instant table jo awal uh, fa xaw ma TFM. Ah, ay cëccëb yooyu di day day bër. Ketchup di dégg naa bu ñëwee ci lam day fecc ba mu neex bëre ba mu neex. non di woo Ketchupam. ma ne Ketchup euh, Ketchup est du simbukat sax yi muy def nii yooyu sax dafa taxaw. léegi moom dégg naa star bu mag a mag la ci réew. non star si si napp au niveau de Faye na nekk si yooyu moom ak ñaar. Hmm. du dëgg. yéen ñaar bokk ngeen xarit. ah euh, cëccëb waaw daje nañ France ba ma ànd ak al amin xam nga waaw signature bu mag boobu. yëg naa dëkk ba tàng jër yow nga sol sa kos ba. non dëkk bi tàng na tàngul parce que boobu maa ngi door dugg Paris man yëguma tàngaay bi moom peut-être nit ñi dañuy wax lool rek mais tàngaay. maa dégg këccëb mu ne maanaam dëkk ba dafa tàngun jër degré gaa yëpp sol ay kiloot ak ay kii yow nga costume ñaq tooy xëpp. waaye ci jóg day wax lu ko neex rek man am naa droit parce que dama dugg réewum tubaab laa dugg. sum ñëpp xam na ne dugg naa Paris. looloo fa nekk voilà. moom daal li muy wax waxi caaxaan. non moom yooyu def yooyu muy def noonu na ko yem say snap ak média yooyu noonu xam nga. Oh. loo seq ak Balla Gaye 2. non Balla Gaye 2 li ma seq ak moom xam nga c'est-à-dire que mënu ko wax si média bi fii xam nga. parce que Aziz Ndiaye xam nga mooy suñ kilifa ñu ñëpp al amin yaa ngi dégg donc tey jii fi mu ne nii xam nga fu ma ne defal lii noonu lay def. al amin waaw al amin. sa diggante ak al defe naa léegi yaay garde corps am de. non al amin lu ma la du sax ay garde corps. xam nga parce que fi mu ne nii mun maa laa wax ne à de lu ñu sekk ñu naan xaw ma lu kii de lu humain la loolu mun naa ne frais de sang la quoi ndax à la mine du ma toog ne may ma moo xool lu baax si ma mu def ma. maanaam fayu la weer te du la doo ko ne jox ma te lu xam ne lépp loo war ci yow mu ngi koy def daal su la dégg lépp lu war si man mu koy def moom mooy xool lu baax. xool lu may jëriñ xool lu ma war a yokk pour ëllëg mun a dama bëgg nga def lii lii xam nga li si war mu def liggéey ma ak moom salaire yaa ngi nit ku baax la maa ngi koy gërëm de passage parce que vraiment ah, bu ñu àndee bële bu ñu yàlla bële bële gi xam nga dara ñaawul di gërëm famille bi yëpp c'est comprendre donc loolu la quoi di gërëm aussi sama benn xarit bu eh, may àndal eh, Moustapha Diop ministre. ministre Moustapha Diop bu Louga. waaw Louga. ñu koy nuyu di ko ku baax la bon sama ay la jàppale na moom tamit xam nga bu loolu weesu yaa ngi dem écurie Fass. écurie Fass waaw maa ngi fay dem. kañ nga fa gëj. donc euh, jëg naa fu temps yi passé bu ñu war a commencé entraînement dem naa fu. Hmm. fekkee boy toog waxtaan ak ñoom loolu waaw mais amul benn problème ak waa écrivage. am waaw mu tax euh, Aziz yi xam nga vraiment euh, yàgg naa jàppale mbër Fass. du tey du ñaar. ba may xam Aziz boobu yàlla deful lii sax. da doon gaare Mercedes bu weex tal indi ko écrit xam nga jënd lu ne ndox yooyu tegil nii xam nga am cinq mille dix mille yàgg na koy def kon nag Aziz Fass dafa mës a nekk Fass. avant moo koy xam moom waa Fass lay àndal kon tey jii bu ma yàlla booleeg moom may ànd ak moom xam nga loolu changé wul dara sama nekkin Fass. Mhm, waaw waaw. looy ñu lay suivre ci Leewtoo TV. non may tàggoo di lay di lay remercier parce que vraiment li yombul ko nga déplacé ak sa équipe bi yëpp nga fekke ma sama local xam nga. ñu remercier une fois de plus waa Fass écurie Fass na suñu président Abbas Ndoye. sant mbëri ni nekk Kër Fass yëpp